képp ku bëgg am yokkute am daraja bëgg ubbeeku say aajo di faju ci baatin nag ci zaahir boo defee secret bi comme ni ñu leen koy diggalee ci vidéo bi incha allah yàlla suñu borom dana defar ay tawféex yu kaw a seen njort incha allah auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim wala xawla wala quwata illa billah aliyul azim allahuma salli ala seydina muhammad wa sallim Assalamualaikum mbokk julli ja mbokk taalibe yi dal len jàmm sen sen youtube le Coran et ses secrets ñoo ngi jaar ñep di ñaanal ñep jàmm te duggu sakku sen tay nak yi dañ leen andil waxtaan bu am solo lol sax secret bu yeme pour kep ko xam la da nga bëgg am daraja manam am ubbeeku fépp fi ngay liggéey fo nek rek nit ñi jox la cër ñi respecté la nga bokk si ñu fa ëpp daraja secret bi tur yàlla bu am solo lool sax la boo leen ko defee comme ñu leen koy diggalee si vidéo bi incha allah yàlla suñu borom dana leen defal ay tawfeex waaye laata ñuy tàmbali secret bi mbokk yi di leen ñaan rek bu leen fàttee abonné si chaîne bi ba si close notification bi bu ko defee vidéo bu ñu mënti dugg rek ngeen bokk si ngeen njëkk jot yàlla yàlla fay di leen di fàttaliwaat mbokk yi ba leen amee secret bu leen yitte lool yoo xam ne da ngeen bëgg ñu partage ko yéen na ngeen ko bind ci commentaire yi nañ leen tontu bu leen amee it ay laaj bind leen ko ci commentaire yi aussi nañ leen tontu incha allah te bu leen fàtte aimé vidéo bi partage ko daa am solo lool sax ndax moo yaatal kër gi te moo ñu may doole yàlla na leen yàlla fay secret bi nag mbokk yi jëlee nañ ko fu wóor ni képp ku ko def comme ni leen ko digalee incha allah di nga am daraja di nga yokkute di nga am élévation ci sa lépp incha allah sa wàllu liggéey sa wàllu commerce ak looy yëngu rek incha allah yàlla suñu borom dina ko yokk bu baax a baax mbokk yi secret bi nag ñu ngi ko jëree ci tur yàlla bi di al adlu boo xoolee ñu ngi ko tuddee ci téere alxuraan bi treize fois mi ngi signifier le juste manam ku djub ki secret bi nag mbokk yi yomb na ñep mën nañ ko defal sen bop da ngay jang fatiha 11 fois jang astaghfirullah 100 fois jang salatu ala nabi 3 fois jang ya adlu 1000 fois nga daal ñaan sa soxla bo ñaané sa soxla ba nopi nga tejé ko ak 19 salatu ala nabi waye nak dang koy def si bésu àjjuma ci guddi nga def ko pendant sept guddi boko def boko defé inshallah defee incha tu seras élevé di nga am yokuté bu baax baax di nga yok ba yëg inshallah bokk yi fi la ñam ak yeen ba benen vidéo ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax baax di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex bu baax di leen di ñaan rek bu leen fàttee abonné chaîne bi ba ci cloche notification bi bu ko defee Video bu ñu mujj dugg rek ngeen bokk suñu koy njëkk jot te bu leen fàtte boo leen amee laaj yu leen jiite lool ngeen ko bind ci commentaire yi nañ leen tontu yàlla na ya leen yàlla fay wasalaam